ah def na benn bi ak euh, sampes yi da ngay def benn ak matadi bu doon ngaaka la defal bu doon dib la defal da ngay def ak ngaaka mais samba da ngay def euh, matadi ah def na benn ak Viviane da ngay def benn ak euh, titi. voilà bi mu def ak Viviane moo tudd Regine Thiès da ngay def benn ak titi tuddee ko taj taa wala fii amul arrière ñëpp xaar am na benn bu mu def tuddee ko waay no boobu moom kese moo ko def da ngay def benn nga tuddee ko euh, the why the why waay no mooy le pourquoi euh, le mooy pourquoi pas da ngay def the why nga tuddee ko le pourquoi. voilà am bi mu def ak sam posé boobu la tuddee daw ma dara nga def benn ak matat di tuddee ko boo dawul dara sa bagaat la. te man ku ma xam-xam dama immature mais pas seytaane du dara mais dama xam lool